Euh, merci encore une fois je pense que actuellement sax moom mooy actualité bi bon en tout cas en ce qui nous concerne ñun euh, parce que euh, conseil des ministre bu kat on a eu vraiment notre surprise de la vie ah noonu laa ko mën tuddee parce que mosuñoo gis ci àdduna bi loi bi ñuy jàllale décret bi ñuy modifié mu jàll en conseil des ministres te deful le tour. Euh, sans l'implication des acteurs concernés. Mm-hmm. su ma nee implication des acteurs concernés le premier acteur mooy le programme national de lutte contre le tabac. Hein, mm-hmm. ah, donc qui est logé au ministère de la santé. Mm-hmm. bu dee programme bi yëgul kon ñun mënuñoo yëg. programme bi nee na yëgul. programme bi nee na yëgul yëgul tinul xamuñu lu mu lu mu demee. donc moo lay wan ni que vraiment euh, l'industrie du tabac. dafa am doole. suñu réew mi mais décret bi de quoi il s'agit lan lañ ci. waaw décret bi xam nga industrie tabac euh, en 2014 on a voté une loi c'est la loi relative à la fabrication à la vente à l'usage au conditionnement. Mhm. du tabac xam nga dafa am ay xeetu cigarette yu bees yu génn. Mhm. maintenant xeetu cigarette yu bees yooyu moom la ñu woowee le tabac chauffé la ñu woowee la cigarette électronique. moom la ñu woowee chicha. Mhm. yooyu loi 2014 jëlu ko en compte. donc industrie tabac bu ko bëggee commercialiser dans nos pays il donc ils ont allé ils sont allés demander une autorisation pour que ñu mën ko ñu mën leen permettre ñu ñu commercialiser ko. maintenant euh, c'était en 2022 on leur a dit que non il faut aller réviser la loi d'abord de 2014 pour pouvoir les intégrer donc au moment où nous étions en train de réviser la loi jamono bi may nii. ñu ngi nekkoon dans des ateliers il y un mois deux mois pour réviser la loi de 2014. loi 2014 bi lan la wax. waaw la loi 2014 bi lu mu wax dafa dafa tënk ma tënk ko juste. si ah, si juróomi poñ. Hmm. donc loi 2014 bi dafay tere li nga xam ne moom mooy publicité. le tabac. muy télé muy moo tax gisatoo ak pancarte yi daal ci mbedd yi moo tax gisatoo ko. waaw loi 2014 dafay tere li nga xamante ni moom mooy euh, euh, industrie tabac muy utiliser euh, paquet de cigarette comme moyen de communication. loolu moo tax ñu changé ko def ci des avertissements sanitaires. gis nga paquet yi changé na. Mhm. loi 2014 dafay tere également euh, comment dirais-je dafay yokk njëgu cigarette. Mhm. mooy à la taxation. Mhm. moo tax nga gis ni y a une augmentation de la taxe. donc il deux ans moom moo tax njëgu cigarette si yokk. Euh, loi 2014 bi également dafay tere ñuy tox ci yenn bërëbu liggéeyukaay. dañ ko cité. donc que ça soit dans les milieux qui accueillent du public et cetera restaurant et mm-hmm. donc je pense que boo duggee di nga gis vraiment ñu su ñu ko respecté. Mm-hmm. donc ak également def ay signalétique un peu partout pour tere vraiment nit ñu donc c'est une loi vraiment qui a été vraiment corsée. donc mm-hmm. boo gisee vraiment loolu moo tax euh, c'est vrai que mu am ay violation de temps en temps mais ñun on était sur le terrain donc euh, pour def. donc ay ay ay ay visites inopinées hein, parce que les les amendes quand même sont très fortes il dans le passé de de de porter plainte à des télévisions comme la TFM, en passant par euh, une publicité dans des séries télévisées. ah Donc, oui am na fi def nañ ko fi. mooy publicité bi dafa amoon cigarette. oui am nga les séries télévisées là que nous produisons yuy jàll ci télé yi. Mhm. donc il est arrivé à plusieurs reprises ci série télévisée bi bu amee cigarette bu fiy jàll. c' est une c' est une euh, publicité indirecte. ok même même le fait de di toxantu. ok c' est interdit par la loi. toxantu laa de waxuma sax euh, donc on a vu Balla à l'époque utiliser la chicha benn série oui, oui. on a vu également dans beaucoup de séries ñu doon jàllale cigarette euh, mm. Mm-hmm. cigarette donc c'est, c'est des publicités mm. et c'est puni par la loi et l'amende c'est cinquante millions donc ah, cinquante millions ci biir série bi nit ki taal cigarette nga nga wane ci cigarette rek waxuma nga taal mais nga wane ko ci rek non waxuma marque bi de cigarette bi rek cigarette laa waxuma marque parce que mën nga bañ a gis marque bi quoi ok waaw mën nga bañ a gis marque bi donc cigarette kese nu mu mënti mel. mais kon yéen vous êtes en avance. oui en fait sur bon, les pays européens et autres. parce bon, que bon je dirais pas en avance mais xam naa ne on a quand même une des meilleures lois. ok mais xam nga aussi avoir une loi et ne pas l'appliquer ça pose un problème. Ouais. donc fii application bi moom mooy problème. maintenant euh, jamono di dox malheureusement ñu ñëw jànkonteek ak yeneen jafe-jafe mooy les nouveaux produits émergents on les appelle les nouveaux produits émergents mooy chicha. <laughs> Mhm. cigarette électronique tabac chauffé moom ngeen di wax pëf. moom ngay dégg gars yi wax pëf mooy lan pëf mooy mooy les serre jetable jetable la c'est-à-dire da koy tox quelque bouffée nga am bu paree après da nga koy sànni. maanaam comme yi ci cigarette njëkk yi. comme rek mais dafa bëri ay forme ah. donc ci forme yi daf ci am yu am ay tur. moom la ñuy wax pëf de euh, bon cherul noonu parce que moo pour pour beneen classe bi la quoi pour pour. non non non en fait d'après l'industrie tabac c'est une transition maanaam dañuy jógee cigarette classique. dem vers la série électronique. Ah d'après l'industrie. ok ah, voilà maanaam dañu dañu xeb bi quoi maanaam jóge nañ ci bi bi bi c'est beaucoup plus traditionnel. moom laa léegi bële c'est beaucoup plus télé pour le waaw mais xam nga jet set bon boobu day cher. mais bi c'est accessible à nos jeunes. les branchés quoi. parce que bu fekkee bu fekkee gis nga ni même dans les parce que wax nañ ko dans le passé nee nañ dans na na parents yi di xool saagu élève yi. dafa jaadu nag. saagu élèves yi. si parents yu bari ñu ngi foog ni seen doom du ñu tux. Mhm. fekk ci biir sac bi am na ay produit yoo xamante ni c'est comme des gadgets. voilà comme stylo comme clé USB. Mhm. alors que c'est de la cigarette. muy góor bi muy jigéen bi nag ñu ngi koy jënd. Mhm. muy góor bi